السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الشيطان كات إخوة الدق كات إخوة الدق كات ديل سوات في تيمبرو دي تي في دي لان واخ مبارا واج كم نين كي يفي ساك زور ولا ساك أي بس ينام وين كون أستاذ بيت تاي دون دف لو موي أغالي أميسيون بيت كي كان خامتان موي عبدو Abdou le gourmand. Uh-huh. Abdou n'est pas gourmand comme les autres nee naa la am na bis boo xamante ne Abdou dafa daw jàng ñaari fan ñëwul lan moo xewoon xam naa ko wax na naa ne dinaa leen ko am bis boo xamante ne. Uh-huh. kii nga xamante ne moo di yaayu Abdou dafa fekk Abdou muy nelaw mu yee nan la ko yeewee. noonu def ko tàpp tàppal ne ko Abdou mën naa ko jugal jàng Abdou bañ lan moo tax Abdou bañ nee na am neexul. tànkam day ruux ndigg ba ak bopp fu lay metti nekk Abdoulaye la yotal waaye est-ce que Cheikh Mbodj boo ma laajoon tey fi mu toll nii la ko wax. diinu. nga ni diinu Abdou il veut quoi. Abdou xam naa ko Cheikh Mbodj nee naa la ko wax. diinu. ah diinu Abdou il veut ba Abdou man boo ma ko parce que Abdou Fa nee naa la xam naa ko waaye tey laa la koy wax ba mu seet ndax Abdou am na loo xamante ne moom la yotal lan la Abdou du yotal mooy ngénte bi nga xamante ne am na ci koñ bi. diinu Abdou il veut quoi. parce que ba Abdou dinaa la ko wax nee naa la Abdou ngénte moom seen koñ Abdou ngénte boobu la yotal ba Abdou nanguwul jàngi. diinu Abdou il veut quoi. Abdou yeewu na ba heure la yeewu 10 heures ak nga xam ne Abdou keroog la mos a biddanti ci ngénte diinu. koo teel a yee six heures du ko yaa ngi yee yaa addu yeewu jëlaat reprise di nelawaat nelaw boobu moo ko yóbbu waaye abdu bu amee ngënte ci bi huit heures pile bu ñu rangé abdu mooy rangé seize diinu diinu abdu lu tax mu bind abdu lu tax abdu bindante laa lay wax nee naa la abdu mooy rangé seize ci koñ bi waaye yaa bi yee six heures du abdu jëlaat reprise di nelaw te abdu biir daaru Abdou mooy daan seeti waaye keroog Abdou yeewu na 10 heures Abdou amul lu muy def muy boral ci miir yi fekk na ñëpp toog Abdou tardé na laax tey wala tardé wul xam naa lan la Abdou di boral di boral di boral bu dugg ci biir kër gi saraax alxuraan yi xew léegi yekk ko laaxu boppam waaye addu dem lu ma njëkkalante daw suub loxo ba ndekete yoo laaxu sankal lañ toog keroog laax ba lakk abdu abdu bi cox ko mu dal ñenn ci gaa yi yu xoloo addu addu e guruma abdu e guruma keroog loolu maa ko fekkee sama bët waaye est-ce que xam nga bis bobu ci élection am lo xamne xam ne xew na biir daaru beneen feet la won waye feet bobu tamit um na jamono feet bi lan la dina la ko wax ci kanam tuuti waye nak sax pëj nan fi yamal li nga xamantene ne lii émission bi ndax li duf ci nag li aju ci cin te lu si bee cin ku ñun coow dalay topp janjangaanooy jange jangaanooy jange jangaan ba mokkale bersa daara jange jangaanooy jange jangaan yow jangal jange jangaan ba mokkale bersa daara jërëjëf jërëjëf soxna ba jërëjëf